yaaro ci mboolem lawlu yaw fallilo yaay Mustafa yaay muntakal yaay wàlliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariqulaay Alaaji Fallu yaay Rasulullaay dem nga fa Makka xam nga ni li lay fallu yaa juboog li am nga nga ni li yàlla hubbu lay xam nga nga ni li bamba hamdu lay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji fallu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun duñu seetaan ndigal ci sëriñ Touba seex Sidiyal Mokhtar xalif général ko lu murit ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ku wér ñëw ci sëriñ Abo Baraka moom Cheikh Mahamadul Fadal Mbakke mu ànd ak njabootu sëriñ Falilu gépp fas yéene àndaat ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi bis bi nga xam ne ci la Cheikh Mahamadul Fadal feeñ ci jamono ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar di yi ngeene li ci daje muy feñ jamono cheikh mahamadul fadal ak gane gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gané ji won borom subhanahu wa taala lé di mbégum a asaman li di mbégum wa suuf wér wo moy wan wér moy wér wi nga xamné moy wéru rajab motax ñu tok ak serigne abdul fatah mi nga xamné mo yoré kaddu njabootuk cheikh mahamadul fadal ci njiitul serigne abo ak serigne basiru mu dend ak ay rakam cheikh murtala ak ñi mu bokal cheikh mahamadul fadal yépp waye tew ak seuti serigne fallilu yi tew ak turandooy serigne falilu yi nga xamne ñëpp xam nañ seen taxaway ci bis bi gannaaw nuyo bi nak fatel rek la fatel lu bo xamne lu ñëpp ken fatu ko ci ko ne xam na bis bi bis bi du jëm moy guddu gi rayaan gi nga xam sunu sunu borom ci la baxé won sunu yonent bi sayyidina Muhammad sallahu ta'ala wa sallam mu dem ci boromam. bi loolu amé ba nopi nak sunu borom dal lu baxé sunu serigne bi sunu sunu lépp Cheikh Modou Fadal mu gane aduna fi ci Daaru salam Cheikh Maodou faadal daana def soo xamante ne bis bi agsi na mu dem fanaani Daaru Salaam ba fanaanee ba suba mu ñëw fii ci tubaa ci sëriñ kër sëñ Afe Ñang loolu sëñ Cheikh Maodou Fadal daan def mi ngi ko noppee gis nag ci saayir Cheikh Maodou Moustapha moom Cheikh Maodou Fadal daal di woo Cheikh Maodou Lamine Alaaji Baara ne ko kat damaa bëgg bis boobu sëñ bi daal dem Daaru Salaam damaa bëgg bu dikkatee nu fas ko yéene def màggal ca la màggalu Kazu Rajab tàmbalee waaye nag am na bis boo xam ne bii moo bis bu Cheikh Mamadou Lamine bu ñëwee suba la magal gi war a nekk talaata lañ koy def ci tuba Aliya ci ndi ci njiital Cheikh Mamadou Moustapha moom laaj Mamadou Lamine ànd ak njaboot gi Cheikh ballo ngi ñu toog kon nag bis boobu nañ ko fonk moom itam talaata la ci guddi gi la la cérémonie officielle bi nañ ko daa defee nu defe ko noonu rek nun waxtu ba ne ci kilif kilifteef la ñuy béy ànd na maag sëñ Mamour ak njaboot gi ma àndoon Alaaji mi ci la bokk Alaaji Ñang mi ci la bokk ak ak Alaaji Jéeg ak Alaaji Ñang ak ñeen àndaloon ñëpp dem fekk sëñ bi si kër sëñ Tuubaa gi ci sow bañ demee wax ko ko mu bég ci lool daal di ne nag nu ngeen ko fonkoon na ngeen ko fonkee lu ko raw kon nag nu nga ko yëgal yabal sëñ Tuubaa gépp tàmbalee ci waa kër Cheikh Moustapha ba ci waa kër Cheikh di ko yëgal di tàmbalee ci Mamor Jaara ba ci ba ci waa kër sëñ Masamba di ko yëgal Cheikh yëpp tàmbalee ci euh, Lamp Fall Babu Mouridina maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne sëñ Fallu moo wax ne maam Cheikh rek moo ko moo ko jàngul taalibe kon nag noo ko yëgal ñëpp. di jo di jot sama nuyoo nag wax naa ko gouverneur mu jottali ko euh, monsieur le ministre de l'intérieur ak monsieur le premier ministre ak le président Macky Sall euh, ñu xam ne bis bi seen bés la lu ñu ci daa def rek noo ngi leen ñaan ñu def lu ko ëpp ndax sëñ Fallou moo moo moo moo moo moo demee noonu. kon nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu baax noo ngi leen di nuyu bu baax eh, li ñu jublu rek yëpp xam nañ ko ne li ñu jublu rek nga xam nañ ko sëriñ bi noo ngi fas yéene sëriñ bi noo ngi fas yéene nanga daa baaxoo digal nanga nu ko baaxoo daan digal nu laxasaayu incha allah nu fas yéene laxasaayu incha allah def ko def ko na nga ko bëggee rek fasoo koo defee nu raw na ko bëggee rek defe naa màggal yi yëpp defe naa màggal yi nu yëpp nanga nu digaloon nanga ko digale woon amna njort defal nango ko bëgg am njortul ne defal nango nango nañ won yi ñëw ci kanam itam japp nañ ni yi ci kanam itam allah allahu taala noo ko bëggee rek la ko bëggee rek laxasaayu nanu ca takk suñu ndigg takk ci suñuy ndigg déglu ndigal rek di déglu ndigal la rek foo ne ay ci ñu ay ci rek fieg màggal gi di jàll su weesoo fieg déwén rek su weesoo fieg déwén rek ndigal lañu kon ngi ñi bokkal di julit yep di itam julit ko sénégal di kilifa di kilifa ak diine ngi lay bis bi ndax noo ko bokk ndax yow noo noo ko bokk ndax bisu sëriñ Falilu la bisu yonent bi la wa sallam kon nag woo kon nag woo ci ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ci kenn noo ngi soññi taalibe yi itam noo ngi soññi taalibe yi itam ñu dëkk Touba ñu dëkk Touba nan fas yéene teeru gan ñi nan fas yéene teeru gan ñi ci yar ci yar ak teggin ak teggin ak taalibe ak taalibe ak bernde ak bernde ñun ñëpp nu génn kër yi ñun ñëpp nu génn kër gi wàcc lal yi gannaaw yàlla danoo waroon a a def nu bokk ca gan ña di fanaan di wax te suñu borom di yendoo ko fanaan suñu borom taw may gan ñi itam ñu uh, dal bu baax a baax njàngum alxuraan mi itam noonu la amee solo ci bis bi ndax biru bis bi ndax borom bis bi ku fonkoon alxuraan la woon mu ne kon nag lu mu gën a bari rek alxuraan ji kaamil yi lu mu gën a bari rek moo ci gën moo ca gën xasida yi itam noonu rek lu mu ca gën a bari moo ca gën salaatu ala nabi itam lu mu ca gën a bari rek moo ca gën lépp rek ñu jëmale ko ci bis bi nga xam ne mooy bis sunu sëriñ Cheikh Mahamadul Fadal yal na yàlla yokk ay leeram te taas na ci barkeem noo ngi sant sëriñ yi bu baax ndax taxawaay bii nu taxaw rafet na lool noo ngi sant bokk yëpp noo ngi sant ñëpp it ñu ñëw ci jàmm fekk nu fi ci jàmm toog fi jàmm toog fi ci jàmm jóge fi jàmm jóge waat fi ci jàmm bàyyi fi jàmm bàyyi waat fi jàmm fekk fi jàmm fañ jëmin yoo gaan fa ak jàmm suñuy kilifa ak ci njiitul sëriñ cheikh moom sëriñ abdul karim ak ci njiitul baye ndam fall moom soxna mbeen moom cheikh mamadou fadil daayiratu sëti cheikh mamadou fadil yi ñoo am mbégte gannaaw bañ amee ndigal ci seeni kilifa ba noppi bis buñ baaxoo def sa ah, at mu jot bu màggalu Kazu Rajab gi desee ñaari fan ren nag ñu ngi ko jàpp altine tolloog le 2 ci mois de mai ñu koy yëgal askanu maaram yëpp nag surtout ahlu Mbàkke yëpp di ko di ko jiital ci yëgle bi li tàmbalee ci kër Serigne Maam Thierno Birahim ba ci kër Serigne Massamba di ko yëgal li tàmbalee kër Cheikh Modou Moustapha ba ci kër Cheikh Modou Mourtala ci góor ak jigéen ci seetu Cheikh Modou Cheikhul Khadim yi leen xamal ne ren nag euh, am nañ euh, ndigal tudd ko kenn ci mbokki Cheikhul Khadim yi ñu di ko wax Serigne Massamba seetu Cheikh Modou Fadil yëpp ñu ngi leen ci woo góor ak jigéen ñu waajal ko yàlla dogal na suñuy kilifa bi weer yu feeñee waxtaan nañu ak ñoom euh, bi euh, benn fan bu rajab ci lañ tàmbali woon wàcc ay kaamil yoo xam te ne bi dañoo ñaan képp koo xam ne Cheikh Modou Fadil mooy mooy mooy jur sa waajur bu góor wala bu jigéen lu gàtt gàtt nga def benn kaamil boo ko mënee sax nga def ñaar fas nañ ko yéenee ñun ñëpp ñu def ko euh, bu ñu demee ba màggal gi des ñaari fan ñett fa fas nañu yéenee woote fii am ndaje ci kër Cheikh Modou Fadal ngir def tëj tëj la asalaamaaleykum wa muy Serigne Fadilou Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada ak ki nga xam ne moo topp ci moom di Serigne Fallou mu Serigne Modou Fati Xari mbooleem kuréelu Serigne Fallou yi ñu bokk ci kuréelu turandoo Serigne Fallou yi muy daayira Adaayiqul Fadaayil képp ku ci nekk rek fa nga daan jàpp moo xam fu mën a doon rek na nga jàppaat nu raw na nga daan jàppee ndab yi nag ñu ngi koy fàttaliwaat kon nag bernde yi comme nun Fallou yi ñoo ko sasoo nañ ci gën a jàppaat gën koo fonk fu nekk itam na nga ko jàpp ak fu ndab nekk nga indi ko fañ ko daan dajale muy ci kër sëñ Abdoulahi borom dër bi ñu ngi soññaat itam fàll yu ci kaamil yi wax nañ fàll mu mën a doon na jàngub kaamil su ko manee su ko mënut nañ ko ko jàngal su dee fàll mu ndaw sax na koy waajuram jàngal muy ñu def ko addiyee moomu Mamadou Fadal di sëñ soññ nag bépp région ak képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci turandooy Serigne Fallou yi te xamal ni it wubbi nañ commencé waat nañ di jaay russi yi nañu ko defee ni ñu ko defee ci mbaar mi ba màggal gi di ñëw ñu ngi fàttali n am na journée boo xam ne ni ren ji jàpp nañ ko muy seet seetal turandooy Serigne Fallou yi jàpp ko ak comité d'organisation bi ak sët yi yi ngir fassiyene yéene dëkk bi ngir magaluk Serigne Fallou gi bu aljuma le 29 dañu bëgg fep fu kurel nek tay balé ci dëkk bi ak fo mëna doon ak daayira bo mëna doon ci yëngu ci seet seetal rek aljuma woo nañ ñëpp lu way man ak nu ci way mëna jappé mu japp ci ngir ñu seetal dëkk bëpp gannaaw loolu itam ni ko bi waxé dafa am ci njaboot gi yoo xam dañu leen jël ñu wara représenter serigne bi ci bitim rew ci ay dëkk ay gox japp naa ne na gox yëpp la waaye dañ ci lim ñen rek ka ci jittu nak moy serigne Cheikh Thiolle Mbacke moom ma ngi koy defee ci Amérique ànd ko ak Serigne Sidi Muxtaar Ka su ñu wax sëñ Galas Mbàkke moom Serigne Abo itam dana ko taxawal ca Grèce su ñu wax sëñ Galas Mbàkke moom Serigne Abo itam dana ko taxawal ca Espagne moom dana ko taxawal moom ca Espagne ca Madrid Serigne Ousseynou Mbàkke moom Serigne Abdoul moom Serigne Fallu dana ko taxawal ca Salaw ca Espagne Serigne Baara Mbàkke moom Serigne Abo dana ko taxawal ca Argentine Serigne Abdoulahi Mbàkke moom Serigne Basiru dana ko taxawal ci Côte d'Ivoire Serigne Fatah Basiru ni ma ko waxee ca Madrid Serigne Abdou Samad moom Serigne Khalil dana ko taxawal moom ca Mali sëriñ Cheikhouna moom moom sëriñ Mamor ak sëriñ Abdou Karim nekk ca eh, Maroc di fa jàng ñoom itam danañ ko fa taxawal sëriñ Abdou Karim moom sëriñ Bachirou moom sëriñ Moustapha Fadilu dana ko taxawal ci Afrique du Sud sëriñ Bachirou moom sëriñ Jili dana ko taxawal ci Cameroun moom mook sëriñ Xaadim moom sëriñ Xalil ñoo ko fay ànd def sëriñ Abo moom sëriñ Jili dana ko taxawal ca Gabon sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëriñ Modou mu sëriñ Abo dana ko taxawal ca Italie dëkk yëpp nag fu ci nekk am na représentant daal mooy ñi nga xam ne ñoo fas yéene taxawal sëriñ bi ak ñeneen ñi nga xam ne tudduñu leen ci dëkk yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax dëkk boo dégg ci adduna bi rek danañ màggal Kazu Rajab ngir jëmi sëriñ Fallu liñ ciy rek mooy loo xam ne moo jëm ci fédération daayira yi nga xam ne ñoo nekk ca Ndakaaru bis bii li ci suñu ndigal mooy ñi dajaloo ci Touba Patte d'Oie fédération yëpp dajaloo fa jël ay kaar nit ñu ko digale woon ci bisab sëriñ Fallu bi fu ñu romb ñu xam la tey la bisab sëriñ Fallu bi bañ agsi Touba jébbal daayira yi ak mbooloo mi sëriñ bi di ci woo alaaj Mor Fay ak mag ñi ma ko àndal ñëpp di ci woo sëñ Modou Mbay di leen di soññaat ak njàm alaaj Njàmme Diop ak sëñ Moustapha Diagne di ñaan autorité yi nga xam ne ñoom lañu dekkal fii ci Ndakaaru na ñu daan taxawoo mbooloo mi ba ñëw ba ñëw Touba ñu ngi koy yeesalaat ci ñoom fépp foo xam ne fi ab daayira jóge na fa wala kon waa jóge na fa ñu ngi ñaan ñu yombalal leen ko ba ñu ñëw ndax taalibe yi ñëw ci sëñ bi rek lañ bis bi ñu nee suba la màggal gi la ñu déparé Touba Padoa def convoi bi ñëw insha allahu ci sëriñ bi loolu mooy ndigal li nga xam ne li moom la sëñ bi waxoon ñu yeesalaat ko ci bokk taaliba yëpp. kon ñëpp raxasaatan seen i baagaan di taatanaat di nekk ñaar fukki fan ak ci rajab ñu doyal leen ko ba mu fees dell bi nag daa mel ne ni ko sëriñ Abdul Fatah waxe am na ku taxaw ci bunt bi di ñu di ñu nuyul sëñ Fallou te yaakaar naa bu ñu ko nuyulee mu ubbil ko ko muy soppeem bu mag ba di El Hadj Mouhamadou Lamine Baara nga xam ne bisam talaata lay doon bët sa di àllarba di bisu Cheikh Mahamadoul Fadal kon ñaari bis yaa ngi noonu dajeeg bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bañ ko rañaane woon kon bis baa ngi noonu sëriñ bi nee na mi ngi ñaan képp ku ci teew yàlla na la Cheikh Mahamadoul Fadal xottil mboot yam daan xottil turandoom ya yaag sa ndey ak sa baay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.